ku ñu tëj rek dafa am loo def na nga jàdd yoon donc dialogue bi maa ngi gërëm ñi nga xam ne gëm nañu les vertus du dialogue te duñu leen décevoir parce que man au-delà de dialogue au-delà de ay mandat nee naa leen poser leen mandat poser leen débat bi waaye li nga xam ne mënuma koo bàyyi mooy kuy jéem a faafaaga réew mi wala di ko jéem a yàq wala jàpp ne mën nañ fi installer kaw loolu moom lu mu jar dinañ ko ci def mandaa boo leen bëggee da ngeen koy ñaan ma ne leen jël leen soo leen bëggee waaye ci njëkk nag ci njëkk de waaye eh, par force doo nekk doo doo doo nekk candidat ñu teg ko ci lan ci seen bëgg-bëgg mais au nom de quoi te ñi koy wax ñoo campagnoon ne référendum bi bu wii jàllee président dana def deux mandats tout le monde le sait tout le monde sait lire le droit kon débat boobu du ma ci dugg parce que débat dialogue bi la man nangu naa ñu débattre ko dans le dialogue man ma nullement comme nangu naa ñu débattre l'ouverture et l'inclusion parce que c'est pour le Sénégal c'est pour l'avenir de ce pays donc nous le ko dialogue dans cet esprit pour faire avancer encore notre démocratie ne me demandez pas de croiser les bras face aux velléités de déstabilisation de notre pays personne ne me demande cela